Mon, mon position par rapport à monsieur le maire Bamba Fall ça n'a pas du tout changé Bamba Fall position bu radicale si euh, si ay ay sa sa démarche n'était pas du tout radicale en fait ñëwul ne damay nekk opposition carrément ñëwul ne damay nekk pouvoir carrément donc nous on n'est pas du tout surpris de voir Bamba dem rejoindre la mouvance présidentielle mais damay wax rek Bamba su ma amee lu ma koy lu ma koy wax en fait je dirais waroon na mën a jàng si maire yi nga xamante ni dañoo dem laaj ba ñu jox leen xeex xeex ak Macky Sall ñëpp xam nañ ni li ñu def à la Médina c'est votre sanction la votre sanction la on a sanctionné le régime à la Médina yow ñu sanctionné régime jox la yow nga jël li ñu la jox dem ànd ak régime boobu noonu yaakaar naa ni trahison mënul weesu loolu à l'égard des euh, comment dirais-je des Médinois man en tout cas loolu laa ko jàppee. ba ngay laaj bu doon dafa waroon ànd ak Macky waroon na ko def avant les élections pourquoi il attend une semaine après les élections de semaines pour dem donc moom xamoon na ni si s'il partait avec Macky Sall il allait pas gagner les élections donc c'est pour ça qu'il a attendu d'avoir gagné les élections pour aller voir Macky Sall mais bon dañ koy wax rek façon waa Médina kenn mënu leen nax ñu ngi fi di seetaan xam di jàng donc euh, vraiment nañ ci dem li dinañ xam